yàgg yàgg baax la ilaha illallah la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 yàgga baax la ilaha illallah neem ku saat dañu dooli la aaw kon dana war sant tey gërëm bamba jox maam Cerno mu jox noo tan fa ñu koy gërëm neem ku sant ñu dooli la waawaaw tan danoo wara sant tey bamba jox maam cerno mu jox no kon fa nu koy gërëm li man biya تخلق النجاة من قدر دنيا وفي يوم النجاة لكل من بيا تغلى النجاه min ka dari dunia Seex Bamba wa fi yawmi najaa Seex Bamba yaa malikal mulki yaa man jalla an xawadin irxam jami alwara ka waxoon dafa xamal ga nga waxoon dafa rey ngir bëggoon sa yërmande ci ñépp yàllaahu irham jami xal waraa ga nga waxoon dafa rey moo waral lii lépp fa yàllaahu jiitu nga leen wanaas nan ba suur balay sa sa góor du yomba méngaleeg geneen ni góor jitu nga wanaas nanu ba suur sa góor du yomba méngaleeg yeneen ni góor ñaanoon naa ci maam Cerno